te dañu xajul ci mbindéef soxna jaara la nu wóolu bu sa baay war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara war naa tax ku jigéen nangul sëriñam soxna jaara borom boole ko gundu gën ak ko xel boo juree mu def yar jóg leen magal borom baraxaan jóg leen magal borom baraxaan jóg leen magal borom baraxaan dina ki bambay daamam dam gi saa irak baatin ma waral mu def xaadam soxna jaara yaa pël géej ma bulaat bulal walwal dikkatoo fi kal nagumar ma ku gar tubay bañawal soxna jaara dal lu bu mar ba ko dal tu bay bañ a wal bu defal lu dama di juuna dana wal ki ni yoolu bu defal xajul ci man su la jaara lan woolu mu la julli te jaabul mu la julli te werdul la diwal min ujiitu afaana jërë ngeen jëf jërëjëf ma doon ñëpp dem toog tarkal la sama goro gis loolu ma wax lu baax. nga dégg ma Serigne Gueye. Serigne Jami Gueye. sëñ bi maa ngi jégalu. ki maa ngi jégalu. nga ànd ak Ngoné Gueye sama goro. sama xarit. may yaay Fadal ba ko baayam baay. waa déglu leen Serigne ah Fadal nee na ma wax ne Binta jabaru dëkkante la Binta mi Fadal dañ ko pasa de Binta mi Pape noppi waaye booy wax ci Binta ma ànd sama sago nee bu ñuy wax ci Binta du ànd nee day nuyu sëñ Mamadou Amar mii toog. nga xam ni sama jëmm ju xeebu ji moo nee na nga xam ni jëmmam ju xeebu ji moo tax mu bàyyi koo fu ne ñëw toog. Amar nee day ñaan nga gudd fan lool. yàlla taxawu la sàmm la ak sa barke maam Serigne Bamba. nee na di quelqu'un très social muy sëñ Mamadou Amar mii. nee na sëñ Mamadou social moo nu muy koo xam ne dafay bay yor ay nagu élevage saa bu ci récolté dara jël ko nee koo xam ne day bay yor ay nagu élevage lu ci génn mu joxaat ko jaam yi talibé Sëñ Bamba yi nee bëggul kenn ku ko wax nee mu waroon a diis oyof tal amar nee day ñaan yàlla bu gudd fan li gën a maan nag sama sama faaw papa di Badara. Rafkat 682 waxal Rafkat bi baale. 682 dafa baale. Rafkat nu mu koy waxee mu déggu may tubaab. Rafkat 682. waaw ci ginnaaw na ñëw dimbali gars yi ñu génn. Rafkat 682 ñëw dimbali gars yi ñu génn. nee day gërëm sunu xalifa Badara ñam. nee du sunu taaw sunu baay la. nee boo gisee amuñu saga ci moom. nee ba muy dimbali seen yi jigéen ñoom mënuñoo am juróomi loolu. moo tax moo giir mii nga xamante ni barki jëmb ba ñuy may rakk moom la ñu ko bàyyile nee na amuñu dara. nee na fi mu taxaw rek la Badara taxawee. nee na bu gërëmee jiili gërëm yéen a sunu xalifa. gërëm naa njaari waali gépp. nee na mu jigéen ñi mu jël ngërëm yi teg ko ci loxo may mun a ñam. ak nday ñang ak ñi mu àndal. nu nuyu Abdou Diop ak ki nga xam ne mooy ndongoloo bii toog. nee na li tax bëggu ta lim boo limee bàyyi nit. nee na ñi fi ñëw ñëpp moom ak Binta moo leen fi indi. nee di nuyu kenn koo xamante ni day kenn ci moom. nee na muy Serigne Cissé mu Serigne Babacar si muy toog. nga xam ne amul jot. nit ku ñàkk jot la. nit ku ñàkk jot la. waaye bàyyi na yitteem. waaye bàyyi na yitteem. ni ma faadal foo nekk ma fekk. ni ma faadal foo ne danaa la fa fekk. nee na muy quelqu'un très social. di gërëm dégg daaj nii mu àndal. nee na di gërëm dégg daaj nii mu àndal. nee na ku gërëm Madou mi nga xam ne ku ne xam na leen ñoom ñoom ñaar. mi borom impro nekk TFM. nee na mi borom impro nekk TFM. sama xarit lu mu am yéene ma ko. nee na bi xaritam lu mu am yéene na ko. soxnaam am na doom mais da ko wan ginnaaw ne ma damay ñëw. nee na soxnaam am na doom waaye da ko wan ginnaawam ni ko damay ñëw. kon maa ngi lay sant bu baax. nee mi ngi lay sant bu baax. di gërëm bokk yeeg ñëpp. nee na bokk yeeg bokkaat yi. di gërëm badaraam ak ñëpp rek. nee na di gërëm badaraam ak ñëpp rek. nee na fi tax ma dugg. mooy Binta. nee na Binta mii nga xam ne suñu séeri la jëlal Binta yow yow yow jëlal ma Binta waaw nee na du gërëm yaayam ndey laam da koy ñaanal yàlla. ndax binta bu ñëwoon melul ni sama yaay bëgg duñu yàgg. yàgg. ndax li muy bëgg bëgg binta ndey laam ak gënal. nee moo ko gënal ñëpp. sama yaayam mooy karaw bëgg naa ku xuloo yow lay bàyyi. di gërëm boogaa mbaay. mbaay. waaye binta. téléphone ban téléphone la nee na moom téléphone la nee na yow yaay piis bi téléphone nag boobu piis du dox nee na piis du dox Binta piis nee na yaay piis bi li yaay piis bi Binta bëgg na ma. Binta bëgg na ma. yërëm na ma yërëm na ma. li ma bëgg la bëgg. li mu bëggul bëggu ma ko. Binta xam na may kan. Binta xam na may kan. ku ne xam ne liggéey bi ñu nekk dafa sensible. nee na ku ne xam ne liggéey bii ñu ne dafa sensible. di nga tëdd 4 heures du matin. di nga tëdd 4 heures du matin. di nga tëdd 5 heures. di nga tëdd 5 heures. te kenn ku ne dina la bëgg te yàlla. kenn ku ne dina la bëgg te yàlla rek. te doo xam lu mu lay bëgg. te doo xam lu mu lay bëgg na. waaye supporté na loolu. waaye moom supporté na ko. te nag jigadiwuma. nee na jigadiwuma. Fall maa ngi ñaan yàlla guddal sa fan. yàlla bàyyi ma ak yow yàlla defal la jàmm yàlla bu kenn dox sama diggante ak yow ndeg jigéen ñi woo ma xool daa xool ma rek xam ni jigéen ñi woo waaye da ngaa doon lu baax yàlla na jàmm yàgg lii rek la doon seede li xaadim laam doon wax la doon dëggal. jalil kenn du Seydina Muhammad jamil fi xulub na samay yaa bari jom Seydina Muhammad asramal xalq Seydina du kulu jàmbaar ولما مامتي المختار سيدنا فمن مقامي واهلنا والولد سيدنا بدر نمي واهلي اولادي فدالا عبدا خديما اللهم صان لسننا su ma wàcc sëriñ Bamba maa mën a def géej gi ma woy maa ñaate faati mbay maa jaatal mbéeg mbéri borom xëy ndoot seet na celaw semaam dekkal na bay la njaay ca Mumbar wax loo na Omar Fall ko lomp janjaari mo sayaas bay xadeg naan te nu naa njaag de may mañ away ci weer wi la mu bindoon turam wàllu yëpp di ñaan rasulilaay mooy maamam sëriñ si mooy seen ilimaan sa turandoo bi ma amee fukki at ci la matal génn xawdu ci ndigal ñëw sa woo ngi doxal bokkaale yàlla ak jaaxaan te no sena si saabula bi ay

waalo waalo dee nee na bu ma rusuloon sama baay man Babacar sama potile boo tiim ni man Babacar ma wuyu laay sët la ci dem ba bunna lagal xeeñ ci sunna lu dul sunna bon naa lu bon sax ci woyof te ban dina ilay lu dul wote wilaaya ak maqaama bu doonee ci xam Maodo daan na jàng di jàng loo di topp ko loo di may too ko may too li la dëkkoon mosoo ñu nax li la yàlla may ku ko yàlla may doo xaar leneen li la yàlla may ku ko yàlla may doo xaar leneen jërëjëf bay bal tagg bi Amar maa ngi jaar li Pape bi wax léegi rek moo ci nekk xam naa dañuy gisante te yàlla dogalul miinante bi bu bari waaye bi ne seen muniru rek dama am ma jox ndax seen jëwriñ seen muniru Amar yaakaar naa tàkk saan bi njëkk a dugg ci ndax su sañoon fu mu dem fekk fa jàmm te bi mu ñëwee ba léegi jàmm la fi gis kàddu jàmm rek jóg kon jotaay bi yàgg na waaye alhamdulilah rek lay wax. boo gisee sax ñu bëgg koo bëgg ngeen yolomal ko mooy day ku ñëpp bopp ndax yàlla dogal na région boo dem ci Sénégal fekk fa njabootam boo duggee nii tuuti croisement ngu njaan nga dugg mbus naax ngàcc. seko mbeefej kabaak ndeer ndeer ngur mbaan daaraam jaa nga fa te ña fa nekk ñëpp baa ma leen dugal ci lislaam faadal mi xam na li may wax bëgg dem boo njaay la jóge njaarnde te njaarnde bis ba mu fa doon def day bisu diine ji yëpp kon bu teewee fii teewal nañ jëpp ni mu jataayee ngir deret yoon yàlla muhammad gi mu yor ngir ñaari wet rek ku sëq dara maa ngi ko boo gis te mbokk njaarnde te muy dëgg genn wetam Seydina Ali la genn wetam Seydina Abi Ayyub al Ansari kon moom mi toog fii teewal na fi njaboot turuq suuf yépp ndax moom moo am sansu nit yàlla yi daje ci atu maam bi nag mi ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal yàlla jàmm tey wax ni xolam sedd na ci njabootam bii di Fadal ndax fadal yàlla moo ko boolee ci njabootu sëriñ lu sëriñ bu wootee teew na fa ànd ak ay moyem ak kàttanam ba ci barki démb tooli sëriñ bi nekk njaarnde nga xam ni sëriñ bi bu ko wootee foo ne nit dina fa jóge ci Sénégal dem fadal dafa jóg ànd ak Dakar Buzz ñëw dugg ci biir tool yi fi donga yi gën a bare fi mi gën a méttee mu ànd ak caméra maanaam topp leen ni day xool liggéeyu sëriñ bi ci àll magal Touba li muy rëy rëy ku ne xam na ni kilifa yi bari nañ Touba waaye fàddal guddi magal tant boo ko dàkk fu dul tantu Serigne Mounirou dox gis guddi magal boo ko xaaree ci Dakar Dakar Buzz di nga gis diggam ak sëriñ bi kon diggam ak Serigne bi lu yàgg la kon nag fàddal Serigne bi ñëw la fi ñetti façon ñëwi benn bi mooy ñëw na fii ci en tant que sëriñ bi seet si taalibe boobu moom la gën a moo ko a ñor ndax roof lay defar roof te uxaddimu ustaasi walidi walaw kaana lii fi lwalidi lbirri wal lutf fa haza murabbi ruuxi wa ruuxu jawharun wa haza murabbi jismi fa huwa lahu sax boroom xam-xam bu mag dafa wax ay wax Sëriñ Tuubaa leeral na ko nee na dafa am mag ñi ko wax ni uxaddimu ustaasi jiital naa sama xaqi sëriñ ala xaqi walidi sama ak ñëpp ni loolu mën a demee mu ni waaw parce que waajur wi jëm ji lay toppatoo te jëmm ji moom yàllaa ko bind ci ban ak ndox day mujj rek génn àddina ñu suul ko sax yi lekk ko yax ya suuf lekk ko lam bàyyi ay njabootam doon ko jëf ji a borom àtte mooy kon jëmm jooju ëllëg day furam waaye ruux gi nga xam ni moom du yàqu day yéeg ëllëg moom la sëriñ bi toppatoo léegi nag mu ni jëmm ji mooy morso bi def wurus bi ruux gi nag mooy wurus bi. baax a baax Serigne Cissé mu sëñ Babacar Sy di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm waaye alaaji Fadel nag ñoo ngi koy ziare baax yow sa xol bu rafet ak sa mbaax li ma waral ñu bàyyi lépp lu jàppoon teel fee di ziare baax a baax alaaji Malick Diouf di ko ñaanal jàmm ju bëree bëree bëri nga xamante ni ci 6 heures du matin la ma woo ne ma yeewul ma ne ko yeewu naa Abdou Aziz Guèye Boussine Moussa yàlla na yàlla defal jàmm am ne ma kay dugal seen Cissé léegi yow naa bëgg nga dugal ko dugal maam xalifa di daano yaa xalifa maam xalifa di jaan ak bëgg Sëriñ Babacar ndax boo tiimee xabram ba da ngay jooy da ngay jooy ngir maam xalifa mbay day loo naa ko yàlla Babacar wuy maama mooy xalifa maam xalifa Tijaan Sëriñ Babacar borom moo ne gaara bég màgg bég sàkk yàlla bég médaay Sëriñ si sa Sëriñ Babacar sa waa ànd ak Serigne Cissé mu Serigne Babacar ali doomi sa samay naar di ale samay naar farami sa samay naar Serigne Babacar sa sëcc dama bu na laka xekki sunna du du sunna kon na du bon bul ci dem saxal ci wala lool si di fa dégg ba ma ca jowaare ay Serigne Babacar si Malick kay leen ñu dem ci waawal siyaare Seydina Aboubacar ku ko deful ëllëg du nu xaare maam xalifa yaa xalifa Tijaan Serigne Babacar man sa soppe laa bëgg a ki lay dëggal laa bëgg a doonee su ma demee ba di la way cofe la tax ba kere darab maanoo arab loo kumba jaabee ñun sa soppe lan bëgg a doonee Sëriñ Babacar ki lay dëggal laa bëgg a doonee bàyyi seen ma su sa soppe lañu bëgg a doon ne boo tiimee Sëriñ Babacar Si di ko xool cofee la tax mooy ali ba mi ta samay naat di yaale samay bare ki lay bëggal laa bëgg a ñun du nu xaaree maam xalifa ay yaar xalifa Tijaan sa peetu arab moo ko moo ko soxla Njaay moom Njaay birum xuja tam mbaalo Njaay birum xuja tam ay leegi mbay jeey sëriñ Njaay ñu fi nekkul woon ku la bay de Tijaan seede leen loolu mbay daal

أتخطب اللقاء في خير أتخطب اللقاء في خير بيتان بكوس ما بيتان ولوس ما بيتان الحمد لله هذا سيكون الله أتخير وجود الله في أعلاه مولاي أتنال الخلافة يا يا يا يا يا يا يا يا يا man mbay arab loo ko ma càmbay arab loo ko ma càmbay xawa di wele ma tagaaña sidi abubakar muracca wayna may sida muracca wayna may sida muracca wayna may sida sax ki daan wayna may sida فمحمدنا من هو سيدنا من هو أجملنا إن المنع تحمي من ما سايا تحمي من ما سايا تحمي من ما سايا لو عرفت الورى شرقا وحربا والآن كمثل فتى المنصور في سائر الورى استسامح الأكوان يوما إلى الهلا يكون يكون إماما والوراء والوراء والوراء والوراء محمد منصور dama faral di way naan moom lu tere yalwaane yalwaane maam Sadio xanaa xamoon ni faadal mi woote rek taalibe Serigne Saliou la ndax Serigne Saliou da ne bëgg nan la su xamee Serigne Saliou soo la su xamee ma way la dafay gën a leer balaa ji dégg daal Serigne nangaam bay jàngi duy foowi duy doxee dëgg dëgg yow lay way dina waxtaan leen maam Saaliwoo borom xel kom jaaga borom layrul maraam borom kursumal ma ak Serigne Saliou Mbacke xajoon na fi yaakaar ni Serigne Béthio Serigne Saliou ko xaatatal ko jur wal ma Saliou بتجيب الاسود مثاله نقي تقي صالح وهو مصلح بصير لمن لله بالحق يسكن ايسر سالم مولو تري يلوان يلوان سالم الحمد لله رب العالمين bu sëriñ Mansour bu sëriñ eh, eh, eh, yàlla julli nañ ca sangam ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa nit nag bokkut ak nam yàlla nam nit bokkut ak nam yàlla li ñu fi dajale namu namab yàlla la li ñu dajale ginnaaw raay ji yàlla jaaree ko ji si faadal ñang mii namab yàlla la tam namab yàlla bu taxee jóg ni ñafa dem war na noo xam la leen tax a jóg lan la ndax lan fadel ki ñëw indiwut ko ki ko indi ki indi ñëpp ko indi muy borom bi subhaanahu wa taala ki indi ñëpp moo ko indi muy borom bi subhaanahu wa bi ma yégee lii xew na ci ginnaaw ki xewle di kenn ci benn adresse la fa am maa ngi nuyu mboole waa ginnaaw raay ndax yaram wee tàng asalaamaaleykum Fadel nit ku baax la Fadel nit ku yaru la nit ku imaasam rafet la Abdou Aziz Diwel bu Silbisi maa ngi lay siyaar di siyaar mboolem njaboot gi nga xam ne lañ fi fekk rawatina kilifa yi Fadel ña am ngeen doom joo xam ne ku ne bëggoon na ko jur ndax yaram ndax i tegginam ndax réglé boppam du fu ne la Serigne Cissé di dem du ku ne it laay joxanteeg loxo ndax Serigne Cissé imaasam la am ak jëmmam ku koy roofanteeg war naa xam yow yaay kan. defe naa fi ma gëjee woon Pikine mooy suma waa ji alaaj Medoune bi muy yeew soxna laa fi gëjoon ba tey bi ma fi dikkaate booba ñu ngi takk si. soxna Jami Gueye ma dugal ko ci avant premier bi la 15 li xew-xew bi nam ma namab yàlla amaan na foofa foofa yàlla yónnee na namab yàlla amaan na foofa muy la 15 ci alaaji Mbirin Diouf ajaratu Jami Gueye yàlla may ko tu tànk muy bu jigéen la kees kon nañ fa dajee ndax ndax ndax bi ma ko waxee bi ma bi ma mi dun waxee na ma Fadel soxna sa wàcc na dama ne ko loola du ma nekk appelu Fadel ndax lu ma waajoon la kon damay duggaale ci mbir mi Fadel ngay nit ku baax ginnaaw di ay nit ñu baax ñoo xam ne nit ñu mën a gan lañu ndax nit lu sagoo lu fa mu nekk bu ko defee maa ngi ziar mboolem communicateur yi ñu fi fekk teg lépp ci loxol Abdoul Aziz yow sunu soppe nga sunu xarit nga ñoo ngi lay ñaanal yàlla bi ma ñëwee nit léegoo léeg mu waaxu ñëw déy ma na ma maag yow ñoo bokk lu nu yaakaar waaye ki tax ma lay seetaan kenn la muy Serigne kër Sy ki tax ngay tax nag te taxawul naan la maa tax ngay tax dëgg-dëgg boo goree ne ko yaa tax may tax kenn moo tax may tax man Serigne Babacar Sy waaye nag Serigne Mansour borom daara ji sama Serigne daa waxoon ne gaañaa ngi ci biir gaañi te bu ñu moytuwul gaañi gaañi danañu gaañ gaañi lii na borom daara ji waxoon waaye alaaj Medoune Diouf ñoo ngi lay siyaara dama wax Medoune ne séeréer pire doo ko ger sekkareem nag danaa bëgg ñëpp yaatu ci ndax dama bëgg lu waay wax moom am ko Medoune duul ku ñuy ger ci alal waaye bëgg na jàmbaar joo xam ne boo ko ca jaaree mën naa wàññi yëf yi muy Serigne Saliou Mbacké bu ma waxee mu ne ma Fadel dafa yar ma ne ko nit lu ma man a yor ci àdduna buy milliard ak lu mu mën a doon sama waaye boo amee taalu bi Serigne Cissé bëgg na la Fadel daa ànd ak Fadel mën na am kule mën na dajale kule kon Fadel yàlla yàlla guddal soo fan seex bi maa ngi lay siyaara Fadel mii nga doon décoré sunu sunu yëf la ndax moom keroog bi mu ubbee siitam boobu bokk na ci ñi ma njëkk a di ma ko wax di ca sàkku ñaan euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a barkeel bakka ñang gis nañ ko wuy neex na waaw Abdoul Aziz lay na bi visa jafee nga ko wutal visa mu dem kon yàlla yàlla barkeel yàlla yàlla taxawu leen mbir mi nag ñaan lañ koy mottalee na nañu kii nga xam ne moom lañ doon tudd tey ñoo ngi ñaan ci darajey Serigne Babacar Sy yàlla na ñu am bis boo xam ne bis bi ñu ne moom la ñuy muur mu sëyi yàlla na ko yàlla dogal yàlla na mu laajte melow baayam yàlla bu mu laajte melow yaayam yàlla bu mu jirim yàlla na am xel ak jom jamono ji nag ku jur du ñaaral ko ñaar yi na am jom na am xel ndax nit ñi na nañu jom te nangootuñu liggéey te bëgg na teel te as gor nay am jom maanaam social li koy lal nga mbir boo woote nit ñi jox la du dara lu personnalité gi nga am dignité bi nga am boo ñàkkoon fayda dañ fi yëg koo xam ne nooyeetu da nga ko teg askan war a woote jox la kenn la jox ndax da nga ñàkk fayda waaye boo amee ful am personnalité am fayda boo indee malaa teg ko ci penc mi ko faj ndax sa personnalité xam nañ ne doo waxantu kon Fadel yàlla yàlla guddal sa fan alaaji dégg daaj mu sëriñ Saliou alaaji dégg yàlla yàlla guddal soo fan nit ku baax nga nit ku mën a rafetal nit ku am fulla bi nga doonee xale waaye doonoo xale kenn ndax am nga fulla am nga da waaye daal la quinze ñor na ma de la 15. ah la 15 invité naa la. le grand champion. la a ah Abdoulaye nekk xam nga du ma la ko wax. waaye ma loxo waa ji rek. bëgg naa ko waroon ne ko cuy la 15. da nga ko sol. la 15 daal affiche bi yow laa ko sas. ndax am na loo ma di te man ku mu bëgg a ñam ku ne da ngay bi na daw léegi. dal ci sama téléphone dégg nga fa ñuy baase yi na nga ko laajte nga baas sa bu paree ma jaayanteeg yow ci barkeb sëriñ Babacar Si nga xool at mu bees mi nan lay demee ci yow loolu rek laa am ci lu ma lay wax wasalaamaaleykum yàlla ñëpp am jàmm ci barke sëriñ Babacar course bi bu déparé nee na ki jël ndaare sax jàmbaar la nga xëy na ca ki ne yaccaaral kookoo jërë yërëm bàyyi na ko nee na bi course bi déparé ki jël pied ak ay jàmbaar waaye ki jël ndaale sax jàmbaar la moo tax Serigne Cissé fii nga ñëw danga fee war a ñëw ndax kii nawle la dama wax léegi ne Serigne Cissé dugg mu ñëw fii Pikine waaye ni ko fonke da nga ma wax waxal ma ko Serigne Cissé leneen loo wax tooñ yow ku la xam ne Serigne Mansour ni mu la def def na la ko ba noppi borom daara ji ku la xam ne yaa yoon social ku la xam ne ci lu baax ngay dox Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy Serigne Cissé mu Serigne Mansour borom te bi borom wilaya bi. borom xaalis bu bat bi nga xam ne ku feebar mu faj borom nagu tabaski borom xaru tabaski yi bu leen déggee nagu tabaski nag ñi nga xam ne wéree dinañ lay rayal ay nag tabaski yu leen di toggal ay tufi ci ay cin di leen ko jox ci mbedd mi moom du tabaski bàyyi de ak ceeb ak diwlin maanaam ñi nga xam ne dem ne wérinu day bañ sax bi ma waxee moom benn jour ba ne ko dof yi mu ne ma déet dama lay bare leen wax dof ñun dof yi moom Serigne Cissé dégg daal ñëwal nii ndax ku eh, ku am gant daane yaay dugal Serigne Cissé mënul nag moom nu ko ñëpp ñaanal yow yaay sunu goro yaay sunu nijaay yaay sunu xarit yaay sunu soppe yow bi ñëpp la bëgg boo fee bëggaatee beneen jabar ñu jox la waaw boo fi bëggaatoon keneen ñu jox la ko moom it sama xol maa ngi lay nuyu maa ngi bu mag bi yow mënul ñëpp la bëgg. waaye nag dafa am koo xam ni muy Siko di frère Bakka Niang di sama PDG jël ma di ma fay chaque su ma liggéeyee mu fay ma su ma liggéey waaye yow sosooy sa yaay sosul lu bon soso ña maalo birima la ba maalo may sa pendu mu nu du juddu doo madam Mati Ñaŋ moo ma dalal ba dalal machine bu ma demee moo mën a awal sama liggéey di mën a dimbali sama yaay Mathiñal sama la tax bu taxawoon fii ma wax ko Mathiñal moo ma defal moo ma dimbali Mathiñal moo ma suturaal waa mi ngi nii nit bi laaj bi ma koy wax gisuma la yow yaa ma defar yaa ma dimbali yaa ma def nit ndax sama maam Abdou Diagne lay seel mu yar ma HLM Grand Yoff su ma yeewoo fekk fa sama ndekki su ma doxee fekk fa sama añ. waaye Serigne Cissé bii Yves léegi la ma woo dama Serigne Cissé fu mu dem foofu baax sa alal fekkewu ko sa ñaan fekkewu ko sa lu baax fekkewu ko waaye nongo seen mii dama bëgg nga ne ko jàkk te ñaanal ko poster booy defati baas booy defati borom dara maa ko tuddee ngi nii lu waay di def Youssou Ndour di def bannière ba moo koy def fasaka bi nga gisoon bëri ci Demba Ndiaye moo defar tikkee defal lépp tey bis bi dafa xaw a commercial ñu baax ñi dañ leen di wane bis bee waaye nag mënuñ dañu taxaw ci moom di soppeeku waaye xaarim yow yaa yaatal ñëpp ci sa mag bamba yaa gore bamba yaa am jëm bamba benn benn yow xaru benn melogo bamba doo soppeeku jigéen bu sama yor yàlla na suñu borom defal jàmm jàmbaari Serigne borom jàpp dara jur ki nga xam ne boo ko jàpp xam ne Serigne Saliou rek la bëgg. parce que dama damay wax ak moom Morou. mu ne ma dama bëgg Serigne Saliou waaye gis naa koo xam ne dafa mel ne moom a ci rot. dégg dégg. Eh. waaye boo ñaa mooy meeru géej waaye.